aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa zurriyyataha mina sheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazaati shayaatiin wa aouzu bika rabbi an yahdurun saddid lisaani nawet ganaani safi amaani wasid baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi boo leen gisee lii xam ne tey ñoo ngi ci port autonome bu Dakar ah waaye nag ku wax port ah maanaam sa xel dem Ah, ci 1902 ba nga xamante ni ah, la fi sëriñ bi wàcc fii ci waaxu Moussa Siri murit yëpp di ko xaar ah, waaye nag mu doon loo xam ne at mu jot waa kuréelu 11 novembre di ko feete fii waaye tey nag ñu ñëw ci port autonome de Dakar fekk fi kan ki nga xamante ni moom lañ dénk cap du comité d' administration portière muy kan monsieur Corsène Sarr waaye di koo xamante ni tey maanaam yaayam yàlla dogal mu nekk originaire de Bawol waaye nag maanaam wajuróom bu góor yàlla dogal mu nekk ndar-ndar ndeysaan mu nekk koo xamante ni mi ngi juddoo fan njaareem muy Jurbel fan quartier Kër Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine titulaire de deux maîtrises en sciences économiques et en administration économique et social. Il est aujourd'hui un cadre supérieur du port autonome de Dakar et président de l'amicale du port autonome de Dakar Il Dogon nak livre bi nga livre la vie et l'enseignement de Cheikh Ibrahim Fall Babul Mouridine Inshallah, sommes tous ñu topé touti ah dinañ waxtaan ak mom def un entretien sur la diplomatie de Mam Cheikh aousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim wa inni uizuha bika wa zurriyyataha mina sheytaani rajim rabbi aussi bika min hamazaati shayaatini wa aousu bika rabbi an yahdurun sadit lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàkkarlook télévision Touba TV la télévision qui nous rassemble waaye ci réew mi ak bitim réew yëpp di nuyu kull koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog télé bi waaye di jiital ci nuyoo bi Cheikh Muntaxal Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér waaye nag jàmbaaram ji Baye Fallam bi Serigne Amdi moom euh, Serigne euh, Modou Mbenda di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér ba lépp lu mu namm liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mu mottali ko ak sago ak mboolem Baye Fall yëpp nag barke Cheikh ba al Khadim waaye di ñaan nag li nuyoo lamboo ci xew ak ki ngëneel yëpp yàlla nekk ci yéen ak ñun. barke Cheikh na Ahmadal Khadim ah, di siyaare bu baax nag eh, allaaj Mbàkke yu fay jëriñu Ndakaaru ak li ko wër di ñaan suñu borom defal ko ndam biir ak biti ak mboolem koo xam ne rek ànd naa ak moom ci liggéey bi ak mboolem ku ko yéenee barke Cheikh na Ahmadal Khadim waaye nag ndeysaan ñi nga xam ne saa su ne ñun ñoom ñooy ànd ci liggéey bi les hommes de l'ombre ñiy tax ñu ñuy gis te ñoom kenn du leen gis tey nag ma ànd ak sama jëwrin sama xarit waaye Baye Fallu kër gi di Serigne Abdourahman di jàmbaar di koo xam ne maam Seera fal rek ko ñor waye nag ndeysaan Pape Dieng Ndiaye di ko char bu baax baax waaye di char bu baax baax euh, ndeysaan euh, sëñ Jiile Abdou Xaadir Ba ak kull koo xam ne rek yàlla dogal na nga nekk ci. liggéey bi ñu àndandook ñoom waaye mu mel nag tey dañoo ñëw port autonom de dakaar waaye seet si benn mbokk taalibe gannaaw bu ñu siyaaree eh, waa daayira Masaalikul Jinaan waaye nag kuréelu Baay Faalu port itam di leen siyaar bu baax a baax ñoo ngi siyaar bu baax directeur général bu port autonome de Dakar Waly Diouf Bodian di ñaan rek suñu borom mottali ay mbébétam may ko ndam biir ak biti ah, mu mel ni nag kenn ci gaay yi eh, kenn ci Baay Faal yi koo xamante ni tey euh, bind na ñaari livre sur la vie et l'enseignement de Mame Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine euh, waaye tamit ba tey euh, mu amaat tome deux mu waxtaanee waxi Mame Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine muy waxi Murid Sadikh kooke nag Mamadou Korsen Sarr lañ koy wax ñu dem régie seetaan moom mooy kan daal di dellusiwaat incha allah ci plateau bi. mëmadu Korseen Sarr jaaree ci ñaari wajur yu tedd Serigne Saliou saar ak soxna Ndey Fatou Seck bintu soxna Penda Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mu ganee jamono nag feeñu naan njaareem le 7 février 1970 waaye quartier Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine dooree am njàng ci école franco-sénégalaise bu plateau waaye nag daal ci teg cours Sainte-Marie bu Hann aix en nag ca Marseille fa la jàngee droit ak économie titulaire de deux maîtrises administration économique et sociale mais aussi en sciences économiques dooree am liggéey ca États-Unis mu def fa ñaari at d'Adignonek du port autonome bu Dakar. président de l'union culturelle du port autonome de Dakar et de l'amicale des cadres du port autonome de Dakar Momodou Korsensar, auteur de deux livres La vie et l'enseignement de Mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine et le retour aux valeurs ancestrales la voie du salut. macha jiri jërëjëf waa Rési ndeysaan mu am solo lol eh, mu mel ni comme ni ngeen ko déggee rek eh, Mamadou Corsene Sarr eh, di koo xamante ni doomu njaareem la ak yeneen ni ci topp yëpp dem jangi Europe ñëw ndeysaan waaye nag di bàyyi pire mu mel ni sëñ Corsene tey Euh, lii nga xam ne bokk nañ ko wax ci sa jëmm suñu borom dogal ko euh, maanaam boo ci doon dolli euh, ci sa présentation lan nga ciy dolli. asalaamaaleykum suñ Bachir asalaamaaleykum ñi ñuy seetaan mbokku taalibe yëpp di jiital nuyoo bi suñu suñu jëwriñ sëñ Cheikh sëñ Muntaxa Mbàkke at ñi fi ni ko fi toogal ñëpp di sant bu baax a baax ci jutaay bi di bëgg tontu ci question boobu nga ma laaj man daal di mën a wax ni rek ab taabal taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall ak maam borom Touba kees lañu nekk ci waar wi nag di liggéey loolu daal la mën a wax sama bopp ndax ci biographie bi wax naa la fa ma soqee ko wax fi may liggéeyee ak yoon wi nga xam ne ak tànk yi nga xam ne moom laa topp fii ci biir port bi muy topp muy tànkub taalibe tànkub euh, nga xam ni mooy suñu maam di maam Cheikh Ibrahima Fall tànk yooyu nga xam ne digl ne ko digl ne ko taalibe ñu topp tànk yooyu rek pour am ngërëmam sëñ Touba kon tànk yooyu lañ toogee ci biir port bi ah jërëjëf sëñ Cor Sène euh, ndeysaan mu am solo lool euh, ndeysaan waaye dafa mel ni li ma bëgg ñu ubbee jotaay bi maam Serap Fall la ñuy waxtaanee waaye nag dama taxaw def chapeau fii ci waaxu Moussa Siri fii nga xamante ni tey à euh, 1895 ci la fi sëriñ bi agsi waaye nag ñaari guddi ndakaaru kenn du ko fàtte euh, ñu naan déetawaay maanaam ñu yóbbu ko juróom-ñaari at mu ñëw euh, ndeysaan 11 novembre 1902 maanaam fii doy waar lool ñuy wax sax bay tudd naan am na borde boo xam ne moo ko largué ndax loolu mënul ñàkk jamono yooyu tubaab yi ne fi tey ma wax loolu maanaam ngir tey lan nga yëg. ci yow mi nga xamante ni tey boo taxee fii rek sa bureau maanaam da ngay jàkkaarloog pour bi yëpp nga xam ni fii tey jii fii lañu euh, maanaam largué woon sëñ bi ci niñ ko mën a waxee mu dem toog euh, juróom-ñaari at maanaam juróom-ñetti at yu manqué tuuti tey nga nekk fi tey nekk acteur portière ba noppi euh, jiite li nga xamante ni mooy Cap Sénégal loolu tey lan nga mu ci mën a wax. jërëjëf Chérif Cissé Bachir.

dem dellu continuer États-Unis demoon naa ba fa liggéey mel ni dafa am lu ne ma da ñibbi Sénégal mais ñibbisee Sénégal maanaam fii laa njëkk def entretien ci ku ñuy wax Pathé Ndiaye mu ne ah toogat sama bàyyi ne ko ah man de li ma li tax ma ñibbisi xaw ma ko ndax mosuma jàpp ne naa ñibbisi waane fee ma toog nekk Baay Faal nga xam ni sëriñ bi lépp maanaam léppam histoire am yëpp mën nañ ko résumer ci biir port bi muy dem baat muy dikk kon man mii am naa ci mission fii kon mission ma fi baax maanaam tànk yooyu ngay wax muy tànku maam Cheikh topp ndigal jox ko lépp jox ko am jox ko àllaaxiraam jox ko alalam jox koy doomam man mi daf mel ne ma jox ma jox maam maam borom Tuubaa ma toog fii di ko kon lolu ci wala bopam moy sama mission fi ci port bi waaw motax nak mani laaj nga ma question bo xamni question bo xamni dama koy wax sax wala ma ngi sentir la may wax ndax chaque fois dama am sama sama sama rakku ñu nek ci kër ga tuddul Cheikhul Khadim chaque fois mu ne ma ah mba fàttewoo mission bañ la dénk ci bir port ba ma ne ko déedéet dama ah, foofu de toogaloo fa sa bopp sëriñ bi ko fa toogal alhamdulilah incha allah ndeysaan euh, sëñ Kor Sène euh, ñuy siyaare bu baax euh, waa daayira onze novembre nga xam ne 11 novembre bu jot ndeysaan ñu ñu ñu ñu bernde fi maanaam ngir fàttali kooko maanaam dikku sëriñ bi ah, mu mel ni sëñ Kor Sène waaye mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ci seen émission talaatay maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine ah, may wax ne nag émission la boo xamante ni ah, maanaam Touba TV émission bi fa njëkk am. mooy talaate maam Cheikh Ibra yàlla dogal nag muy dox di dox ba yeneen i talaata di am euh, ñuy siyaare bu baax waa Jazbul Murid ñoom it ñuy suñuy xarit di suñu lépp war a feeti seen dix ans incha allah janvier na ko ñëpp xaar waaye bu mel ni émission bi dafa màgg ba wutal ko ay yeneen i format bii nag da bokk muy Baye Fall à l'affiche kon ñi nekk ci bureau yi ñi nga xamante ni tey dañuy dund maam Cheikh Ibrahima baabil Babil diin euh, waaye nag di ko dundee dund biir dund xitma ñooñe nañ ñu xaar tey nag ñu war a waxtaanee euh, la diplomatie de maam Cheikh Ibrahima Fall Babil mouridine waye nak buñ ñu diplomatie dañuy jaaxal ñu bari ndax diplomatie faaw ñu wax lan moy définition bi moy la euh, euh, la diplomatie est la conduite euh, de négociation et de reconnaissance diplomatique entre les personnes les groupes les nations en vue de définir un accord par exemple pour résoudre un conflit sans violence ah, mu melni kon mbooleem lu nit di def mu don ay pexé wala mu don ay yité ci waxine ci ci defin ba defar digënté ñaari nit ba eh, manam lepp safaro ci jamm rek lolé moy diplomatie ah, mu melni kon buñu wara waxtani mam sey rafal diplomatie manam dinañ dugg inshallah allah ci digënté mak tuba bi ndax bako serigne bi yewé ci eh, manam eh, gërem ko manam ndar la ko yebal fi nga xam mo nekkon capitalu AOF e waye mam Cheikh Ibrahima Fall Babul mouride nit am cieur Dakar. lu ko waral am na cër Thiès ak feneen ak feneen ak feneen ah, kon sëñ Kor Sène ah, boo ñu dikkalee ci diplomatie ba pare ñu soog a dugg ci questionnaire yi incha allah kon sëñ kon Sène ak diplomatie. waaw sëñ sëñ Cissé maanaam maam Cheikh mooy diplomatie ndax fa mu soqee ko nii ne ñam ñàmbur la waane ñàmbur la gën a yàgg ndax njare njabi bu dee njabi la la soqee ko maanaam njare bi maanaam fi nga xam nekk ci jolof ci côté ki nga xam ne mooy waajuram bu jigéen foofu dafa nekkoon Carrefour boo xam ne noo def nga am sens de la communication noo def nga am sens de la diplomatie ndax dafa nekk Carrefour boo xam ne dëkk yu bari dañ fay daje mais diplomatie maam Cheikh dëgg li nga wax ma nga tàmbalee ndar ndax bi mu toogee ci 1883 la dugg kër Maam Borom Touba liggéey fa ñeenti at ñu seexal ko sëriñ bi yónni ko Saint-Louis en 1888 maanaam 1888 la diplomatie Maam Cheikh tàmbali ndax ci la liggéey bi tàmbali ndax mission bi nga xam ne Maam Cheikh amoon na ko mooy dem fi nga xam ne mooy capital bi fi nga que ni fa la nga représenté ki son représentant son général son ambassadeur la mission que l'expansion et le développement du mouridisme kooku de mu mission éclaireur éclaireur mooy ñëw mooy ñëw xool lu xew état des lieux dëkk Sindone ñu boole koon maam askamara ba nga xam ne moomoon seqoon naat sëriñ bi te am na sax bor boo xam ne sëriñ bi da ko ko ameloon mu yónnee fa maam Cheikh maam Cheikh di ko liggéeyal ba fay bor ba mais comme que nag ñaari ku yu mënu ñoo bokkum kii mu ne ko ah kon nag yow da ngay dem toog ndar da ngay dem get ndar manam Guet Ndar ci boppam le kër maam Cheikh la maam Cheikh sañ premier këram kon manam diplomatie buñ ko jappé dafa am éclaireur ñu dox touti mu andi ouverture ouverture moy lan moy manam di dox jam digënté moom ak bi di dox jam digënté moom ñi nga xamné moy borom xam-xam yi nek ci bir ndar yépp ak di jox jàmm ci maanaam population bi ne maam Cheikh këram danaan fees dell ba waa Saint-Louis sax dañu mujj am ay kilifa yoo xam ne dañoo mujjoon di ah am jalousie boo xam ne ñu ngi ne ah kii de moom wax dëgg yàlla maanaam comme yëfi si yëfi yëfi yëfi nit rek fiiraangeel yooyu yëpp léegi nag maam Cheikh commencé nag di ko doxal maanaam di doxal ci population di doxal ci mag ñi ñu yónnee ko ci zawiya say nu mu tudd sax si El Hadj Malick ba mu contribuer ca liggéey zawiya boobu noonu maanaam képp ku doon xam nag nitub xam-xam yaat maam cher da nga na da gën a seqoon lu bari loolu mu bokk ci approche ndax bu ñu demee ba waa Ndar commencé di ko fréquenter ku ci am as projet ñoo waxtaanaat moom développement bi mouridisme bi mi ngi dugg si mais développement bi fa mu gën a maanaam fa mu gën a développé wu euh, mi ngi ca ba ñu yóbboo sëriñ bi 1895 ndax quinze fekk na moom ak tubaab bi dugg ñu duggante de dañoo respecté te ndax moom da daan génn ci tali bi at ay ay ay ay ay ay nitam di def set setal ay acte citoyen foofu la ko tubaab bi commencé naw xam ni kii ñëwul pour yàq kii jëfa ñëw pour defar lépp lu dëkk bi soxla maam Cheikh fay njëkk tubaab bi nak commencé di ko respecté mais nag bi sëriñ bi demee ci géej ga maam Cheikh indi diplomatie maanaam diplomatie boobu stratégie la la stratégie booy lan ay lal ay pexe ba am la nga bëgg comme que ba sëriñ bi di dem kenn newul ne fii la yóbbu sëriñ bi kenn xamul fu ñu yóbbu sëriñ bi moom il faut mu def ay pexe pour xam fa la sëriñ bi nekk ci lay commencé di bind te colon yi adressé ay correspondance dañoo dem ba tubaab bi xam ni ndax correspondance bari na mu xam ne kat kii la war a waxal te nag li ci doy waar mooy maam Cheikh daa amoon entête de maanaam lettre bu muy bind Cheikh Ibrahima Fall la ci bind ca kaw de am entretien lépp nga xam ne tubaab bi bu ko xoolee day ne ah kii de sama nawle du comme ñu doon bind noonu rek de déedéet maanaam forme yëpp mi ngi ci lettre bi kon nag tubaab bi dem na ba xam ne kii ku jar a waxal foofu la tàmbali indi diplomatie moo ne administration française bi gouverneur yëpp mu fexe ba ñu nekk ay xaritam. Carpo ki nga xam ne ab député la dafa bëggoon nekk député du Sénégal dafa ñëw ne ko ah man de damaa bëgg a nekk député mu ne ko mën naa la si jàppale waa waaye ci condition bii ma xam sama sëriñ ma fu mu nekk Carpo ne ko d'accord na mu fexe ba Carpo boo gaje nekk député du Sénégal Carpo moom itam la mu kàddoom ba mu joxe woon mu respecté ko ndax ñëw na indi ay këyit leer nañ ne ko bi fii la nekk ma nga ca Gabon jox ko ay indication précise ne ko nag danaa la jàppale nekk sa avocat parce que correspondance yooyu bind ma jàppale la ci kon foofu diplomatie bi tàmbali ba gouverneur bu bees bi Noël Noël Eugène Bale ñëw mais ba mu ñëwee problème yi tàmbali ndax maam Cheikh dem na ba ñu génne ko ndar ndax rek boole ñu boole na ko suñu waa kër yi kan boo ko yónni marché bu demee ma ma kër maam Cheikh tubaab bi aussi am ab incident bu fa amoon ndax ku doon xool ñu maam Cheikh dafa génnoon at njaboot am ab tubaab bu nekk ci étage ba di ko xool jékki-jékki rek daanu dee ah ñu ne ko sëriñ bi ko rey koo ma ko sëriñ bi. Ya, ne ko lu xew mu ne ko dox di dem manam tuba bi di ma xool gis ci man ak leer bo xamne bo ma nga waxa maa sama sama sering be fele ci gabo ma daanu dee boole ko nak at li nga xamne moy mooy plainte yi ki yow mi kat dañ lay gëna nar ñu gën ko nar yobbu ko jaara tas ñer ganjol ah bañ ko yobbo jaara nak. mooy leen ah fii de ngeen ma yóbbu nii ñaata laay fay ñu ko déedéet kenn fayu la doo doo ci fay dara ma leen ah déedéet danaa fay de jaara di turu maanaam ndey si ki nga xam ne mooy ki nga xam ni moom laa yaakaar ak kon de borom ki nga ko kon de sëriñ bi fay na ma ba mu mat borom jaara fay na ma ba mu mat foofu nag bañ ko yóbboo mu commencé def maraîchage maanaam légume yi nga xam ni moo gën a rafet moo gën a kii ca ndar moom moo ko doon jaay ba benn jour gouverneur bi ñëw di jënd légume gis légume maam Cheikh mu ne waa lii légumes yi moom fu mu jógee ah benn sëriñ daal boo ñu yóbboon fa ca jaaram moom moo koy def kooku ne ah koo de il ma dem fa mu dem visiter ji maam Cheikh maam Cheikh teral ko. moom nag gouverneur bi mu woon toog semaine te demu fa ñu dem nag ba am relation yooyu ci relation yooyu moom mu bëgg a des Sénégal ndax mandaam jeex na mu ñëw ne ko ah sëriñ bi de man de sama mandat jeex na fii ci Sénégal dañ ma war a dellu waaye bu ma sañoon dama bëgg toog ndax kat bu ba toogee sama yaram bii dafa mel ni fii la gën a nangu ko sedd ba fële mu ne ko mën naa ko de ci kon ci condition nag laa koy teg mooy bu ma la defalee loolu nga fexe ba nooy bind ay këyit ñu defaat projet bu semence la mi ngi bisi taa na ko d'accord na teguñu ci ay weer ñu te ñu ab décision jóge jóge France ñëw ne ko sëriñ bi ñëw na gouverneur dañ laa dañ ne dañuy prolonger sa sa mandat Sénégal moom itam la mu dig la mu la mu digoon mu def ko ci commencé bind ay lettres au niveau de de de des colons manam ci Europe pour ñu revisiter procès Cheikh Ahmad Bamba lolu ci lu bok, ci diplomatie serigne bi ci la bok. bolé ca gouverneur Bofa fa jaxaar damay joxe gouverneur card manam jaxasoo bimu mu joxoon jaxasoo Cheikh tu dem na bok tudde ko ab te ñoom ñëpp pour wane ne rek relation boobu nga xam ne maam Cheikh amoon na ko ñoom ci dem retraite da ñëw seet si ko maanaam pour diir que relation diplomatie boobu ngay wax maam Cheikh da koo da ko togg ba mu ñor xomb te lu nekk dégg na ko ci mais objectif bi rek moo doon fexe ba ba Cheikh bi dellu si Sénégal. ndax ci archive coloniale dañu ne lan la ñu mën a reprocher Cheikh Ibrahima Fall koo ne ko dara waaye ne la mën a jàpp mooy léppam ci pexe ko teg ndax lim ñu mën a bëgg bëgg bëgg Cheikh Ahmadou Bamba bii la gën a bëgg waaw waaye ne kon nag léppam ci ay pexe la ko teg kon tubaab bi dem na ba xam ni kii borom pexe la ndax bu ñu demee. ba ñu ne qualité maam Cheikh Ibrahima Fall mooy lan dañu ne un fin diplomate maanaam tubaab bee reconnaître yi Madagascar lañ ko bëggoon yóbbu ne nañ ko fa denc ba mu wàcc liggéey bu ko murit yi gisatul yoonu murit tas gouverneur bu ñu wax carte tudd na Cheikh Ibrahima Fall doom Cheikh Ibrahima Fall carte gëstu leen archive national gouverneur général bu AOF ma Sénégal de Afrique tudd na Cheikh Ibrahima Fall doom benn doom bu góor la am Cheikh Ibrahima Fall la ko tudde muy Cheikh Ibrahima Fall carte mook sëñ Fallou Fall taawu Cheikh Ibrahima Fall ñoo demandoo 14 18 carte moomu signé na lettre bi sëñ bi war a ñibbisee une semaine ñi mu ko wax gouvernement bu France moo tax ci màggal gi da nga dégg ñu ne sëriñ bi bi ñëwee suñu borom daf ne ko sa ñibbi si daa am loxo bu mu jaar. Uh-huh. moo tax faaw nga dem gànnaar mottali. kim jaar du loxo kenn ku du Cheikh Ibra Fall moo ko lijjanti ba sëriñ bi dellu si. ñaari avocat français la jëroon di leen fay ci poosam jël ñaari écrivain français lu mu leen doon doyee lépp ñu leeral mbirum sëñ bi te xamal gouvernement bu France ne dañoo dikk Afrique ci noteel di tooñ sëriñ si sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yaakaaram ñoom ñoo ko tooñ. bu top day am mom mo len di top ba serigne bi ñibisi bi serigne bi ñibise ñu yobu ko gànnaar Cheikh rafal ba wut de leetar ba ko Cheikh rafal la ko signé ma nge copie bi mam baylo ku ñu wax mam babakar Lo ci loo yéenu Thiès fekk courrier bi dem mam babakar Lo mo yobu lettre bi serigne bi ñibise tuba bi ne ko man nañ ko indi Senegal. Wa yow yaay tax waye dafa am lu ñuy ak yow bu fi xaré amé ya ko fi indi ku fa dé ya ko ku fay nekkit yaa koy tànn kenn mënu faa ne ku dul koo fa yebal cheikh ibra fall d'accord ak ñoom ci loolu signé lettre ñu indi cheikh ibra ñu indi cheikhul khadim ci yeen jolof cheikh ibra fall buub doomam yépp yóbbu sëñ mortala fall sëñ fallu fall sëñ lay fall ndar sëñ aliou fall mbawor ñoom ñépp mu buub leen yut sëriñ touba neen na ñii di sàkket na ñii di taxane na ñii di togg na ñii di daaj ay néeg sëñ fallu fall ku xaral la won néeg bu Serigne Touba mës sa dëkk ci ci yéen joxol Jolof taawub Cheikh bi Fall la ko daaj ci loxo ah jërëjëf ah, sëñ Mamadou ah, korsen sar ah, ndeysaan mu am solo lool nak nga xamne eh, manam xam-xam lañ fi dégg waye nak wax jo xamanteni tay eh, wax ju leer nañ wax deug yalla ci diggante eh, diplomatie bi nga xamanteni mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine nonu la doxé ak gouverneur yi nga xamne ne jaar nañ fi nga xamne du ben du ñaar waye ay gouverneur lañ yo xamne ne ku ci nekk rek am nga pacte ak mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine waye pacte bobu nak mom dafa am taxaway bu tonni manam lepp rek du ko jëmi wat ci ngir sëriñ bi dellusi fii euh, maanaam ci Sénégal euh, waaye loolu it yamu ca euh, day mel ni sax lettre bi nga xamante ni tey yàlla dogal na maanaam gouverneur bind ko ngir sëriñ bi ñibbi si Mauritanie maanaam loole ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine lañ ko teg waaye li ma gën a daw sama yaram nag ci waxtaan wi mooy pexe yi nga xam ne doon nañ ko lal ngir génnee ko ndar euh, yóbbu ko bopp jaara ndeysaan moom philosophie bi mu utiliser maanaam mooy gis-gis bi mu ci am mooy comme li muy wax rek ne def leen seen mu nekk seen bànneex euh, dafa ne ah doom ñaata laay fay ñu ne ko ah faal ñun koy xanaa danoo bëggoon rek mu ne ah faaw mu fay ndax kuy liggéeyal doomi jaara bañ yóbbu la dëkk tuddee ko bopp jaara ah doom damaa war a fay nga xam ne kon moom gis-gis la ci am ah, mu mel ni diplomatie maam Cheikh mu Fall Babil Mouridine maanaam yamul rek ci digganteem ak tubaab yi waaye day mel ni population bi tamit euh, maanaam am na moom nu doon dundeek ñoom euh, ba ci euh, buur yi waaye nag ba ci doomi soxna yi tey diplomatie boobu maanaam boo ci doon dugg ana lan lay doon. ndax diplomatie bi dafa dem ci waa kër maam Borom tubaa dem ci maanaam kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekkoon ci région yëpp ci Sénégal lay wax a demoon ci buur yi. ndax euh, comme li ma la wax rek bu ñu mission bi mission bi mooy le développement du mouridisme kon tey dit mouridisme dafa war pénétrer les régions du Sénégal te bu pénétrer les régions du Sénégal loolu ñuy wax le maillage maanaam fenn warta des te boo le ko période boobu noonu li ñuy wax euh, maanaam ci maanaam ceddo bi daf ci ba fi bari woon doole population autochtone bi ñu ci bari ay ceddo lañu woon te maam Cheikh bul fàtte ci milieu ceddo la jugi ndax moo na nekk buuru Kayoor moo na nekk aussi buur ba Jolof kon tey jii moom transition la euh, tey jii moo taxit ci stratégie bi maanaam da doon dugganteet buur yi ba buur yi nangoo jël seeni doom may ko maam Cheikh da nga gis sax relation buur ak buur boo xam ni ay siècle ñoom duñu waxante maam Cheikh fexe ba ñooñu ñu bokk maanaam ab place bokk ab kër boo xam ne ñoom dañuy waxante par force loolu maam Cheikh indi na ko ndax boo ju boo gisee ay famille Mbóoj famille Lat Joor

kon ki nga xam ne da ngay lislaam waxuma yaa ngi contre catholicisme de mais yaa ngi tey ji defaraat jikko yi ndax demoon nañu ba euh, li nga xam ni mooy ceddo dafa bari woon doole ci ci ci ci Sénégal te ñoom la xamoon mooy doole rek lépp ci ñoom doole la ku mën sa morom duma waane bi maam Cheikh duggee seeni biir la ñu xam ne kii ponkal bi ñëw na de ndax képp koo xam ne buur nga woon ndax yàkkamte woon nga sa doom maam Cheikh denc ko même ba ñoom seeni biir ngeen ma waxante wuñu woon dañuy toog di wax par te koo xam ne defe naka sulul noonu da yóbbu ba ci sëriñ Touba sëñ bi waxaat yow boo dellu see boo ñëwee da nga toog xam sa bopp moo tax dem na bañ ni maanaam bu doon maanaam bu doon ab dayo rek ab dayo kese yéen ñi ñëpp kenn du fi toog ab dayo rek yéen ñi ñëpp kenn du fi toog kon maam Cheikh xamoon na nit maam Cheikh xamoon na luy valeur maam Cheikh dafa jàng ci sëriñ Touba lu bari moom moo tax muy wax lépp lu Serigne tubaab bind man Cheikh Ibra Fall jëfe naa ko ba pare ndax boo xoolee valeur yi ñuy wax euh, valeur yi sëriñ bi da ko da ko maanaam da ko da koo génne ci ay téere masalikal jinaan boo ko boo ci ja ko jàngee da ngay tiit da na ne ah man di sëñ bi wax mënuma ko de ndax sëriñ bi préoccupation yi mu amoon dafa kawe moo tax ñaari pôle la maam borom Touba dafa nekk le spirituel maam Cheikh Ibrahima Fall nekk le temporel maanaam kii fa muy jëfe te mënuñu faa yegg maam Cheikh dafa nekk suñu biir wan ñu yoon bi kon tey jii comme ni ma la wax bu jógee ci diplomatie ca buur ba mi ngi ci diplomatie ci kër gi ndax doomu maam Cheikh yëpp doomu maam borom Tuubaa yëpp ay xaritu maam Cheikh lañ ndax ku nekk xam nga yow ndey tey ji boo xoolee ku nekk ba nga ko am na bis ba nga ko seetsee da ngay demal ca wana ca ca ca kii bee mm, ca gaal gee nga nga génn ab der mu fekk fa der yu bari der boo génne ndax xàmme nga ko déedéet deru diw la ci doomu maam borom tubaay de deru diw la ci doomu maam ta di ko lim benn benn kon ñoom ñëpp ñu ci bari fekk na seen juddu kon nag moom maanaam diplomatie ba mu amoon at ñoom tax na boo ñoom ñëpp ay xaritam lañ mais nag mu jox leen cër jox leen cër de sëñ Fallou moom kenn waxatu ko sëñ Fallou moom wax dëgg yàlla péetam maam Cheikh ñëpp nag koo ci gis nag dafa am pété ba ci yi nga xam ne nag mooy boroom xam-xam ndax boroom xam-xam yi ni nga ko xamee ba sëriñ bi demee ca géej ga dafa ne daf ko dénk njaboot gi maanaam euh, sëñ euh, Maam Cerno mi nga xam ne moom lañ dénkoon njaboot gi maam Cheikh daal ñëw di ko nemmeeku di xool ndax kër gi amul lu manqué lépp lu fa manqué mooy indi moo ñëw def ko ci te yamul foofu de taalibe yi nga xam ne tey jii dañoo daw si na daw si woon làqatu ci maam Borom Touba ñoom ñëpp dana jàppale ba sëriñ bi dellu si dellu si ci digal digal sëriñ bi kon moom mi ngi dox ci ndigalu sëriñ bi mi ngi dox ci ay stratégie mi ngi dox maanaam pour njabootu sëriñ Touba bañ a tas loolu moo tax ma ni la dafa am partie expansion du mouridisme mono moy lolou mu def rassembler famille rassembler bourri rassembler ñep ci bourdisme mais man tam téye wa kër mam borom Touba bu tass ndax bi nekk fi kon mission yoy la xamni mom ne moom mam mam mam maam maam maam Cheikh ibrahim Fall da ko doxal wax digal la ba mu mat sëkk. ci kër eh, manam Serigne Touba eh, mo mo mo xam ni nga ko eh, ñi nga xam dañ leen tuddi tuddu bi waaye mo xamit ni nga ko waxee ñi nga xamne ay. taalibey sëriñ bi lañ eh, maanaam ñëw eh, nekkandoog moom ay nawle eh, ci biir kër gi benn lenn rek tamit frappé na ma ci mooy keroog 1927 ba fi sëriñ bi jógee mu mel ni dañoo wax ne tubaab bi da leen a mayoon juróom benn fan ngir ñu feeñal ki nga xamante ni maanaam mooy jiitu ci kanam gannaaw ba sëriñ bi newtu fi mu mel ni nag sëñ Modou Moustapha dafa joxe ndigalu ne nañ woo mag ñi ñu woo mag ñëpp waaye mu mel ni maanaam maam Cheikh mel ni ku mujjee ñëw waaye ba mu agsee dafa summi bot yi ak ni mu toll ak ni mu mel daa di raam jubal si ko maanaam loolee diplomatie boobu nga xam ne jëf la waaye du wax loolu it bokk na ci li nga xamante ni dafa taaral yoonu murit waaye jàppale euh, maanaam euh, tey jii euh, maanaam sëñ Modou Moustapha maanaam ñu jëlee raay bi yóbbu ko maanaam njaarim nga xam ne dañuy wax ne maanaam taxawal raay ngirub jumaa maanaam ci yoonu murid rek lañ ko mës a gisee ak liggéey bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine euh, liggéey wax nga léegi diggantam ak sëñ Fallu waaye diggante ak sëñ Baara it noonu euh, ndax euh, soxna say Baara maam Seynou bu Njaay lañ ko tuddee ak yeneen yoo xam ne boo koy lim maanaam du jeex jërëjëf sëñ Kor seen Sarr waaye ba tey tamit sëñ Daam Abdourahmane Lo maanaam seede yi mu seede ci maam Cheikh nga xam ne léegi wax nga ceddo yi waaye wax buur yi waaye wax it fuure yi nga xam ne ku ci nekk boo ñëwee da koy fekk kër maam Cheikh sëñ daam nee na euh, sëñ Basir nettali sëñ Basiru Mbàkke ci Minanul Baaxi Xadim ne euh, sëñ daam nee na li ko gën a yéem mooy classe yooyu ni ñu wutee nan leen maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di dajalee ci génn kër euh, waaye ba tey jërëjëf sëñ Kor Sène ah mu mel ni nag ba tey tamit boo seetloo maam Cheikh Ibra maanaam moom day mel ni ku teeloon yeewu la ci jamonoy kolon ya amoon ay titre foncier amoon ko far ndar capitale de l'AOF am ko fan dakaar nga xam ne moo nekkoon deuxième capitale waaye am ko fan Thiès léegi ban diplomatie la adopté ba nga xamante ni tey eh, maanaam ki nga xamante ni maam Mbay Lo lañ koy wax sëñ Babacar Lo nga xam ne ba muy jébbalu ci maam Cheikh naam moo ko magoon cay at waaye nag doon na koo xamante ni tey da daan joxe wérdu Tijaan amoon i taalibe waaye mu ñëw Cees nan la dundee sëñ Abdoulaye Yakhine nu mu def ba implanté ko fa waaye nag euh, ki nga xamante ni tey euh, maanaam du murit euh, yàlla dogal mu nekk Cees sëñ Ahmadou Bara Ndiéguène nu maam Seex def ba mën a gérer loolu yëpp ba nga xamante ni tey maanaam boo ñëwee Cees maanaam xel yëpp dem ci gàmm ndax i tamit maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine daa waxoon ne a doom màggal Touba waaye gàmmu Cees yaa ngi yaa ngi ñëw nag ci li nga xam ne mooy stratégie nga maam Cheikh euh, man de bu mu daan wax dama ni c'est l'homme du temps l'homme du temps mooy koo xam ni wax di yàlla 1930 ba léegi boo cee wax day mel ni moom mi ngi fi tey ji ñuy wax ak yow ndax ku dafa am vision yaa ngi wax ne titre foncier yi nga xam ne am na ko ci région Sénégal yëpp ndax ci archive coloniale tubaab bi dafa ne treize fois propriétaire foncier treize fois ca Ndar ca Louga ca Ndand ca Jurbel ca Thiès ba ci Ndakaaru Njaay mi fi ñuy wax Lambinaas te booba palais de la république ca la nekk primature ca la nekk maanaam zone boobu yëpp matoon na quatre hectares li tax mu génn ci loxoom mooy ba sëriñ bi dellu see da koo jël da koo jël jox ko addiyee sëriñ bi sëriñ bi jël jël ko jox ko ma am na fàtt naa tur ba ne sëriñ baa am na keneen ku mu ko jox loolu moo tax mu génn ci ay loxoom te loolu mu maam Cheikh defoon ab stratégie ndax boo yàggee fréquenté tubaab bi nga xam ne moom itam borom pexe la ndax xamoon ni sëriñ bi bu ñibbisi bu nekkul géej maanaam ab tefes bu nekkul ab gaar tey jii foofu rek la maam la sëriñ bi mën a jaar pour ñibbisi te lépp li nga xam ne ñu laf moo fi nekk tubaabee ko moom moo taxoon mu wut ay titre foncier yoo xam ne moom moo ko moomal boppam pour bu sëriñ bi ñibbisee ak fu mu mënta jaar bu ñëwee dana dana ko dalal xamal na fii sa kër loolu moo tax titre foncier yi ngay dégg yëpp nekkul ci gaar ma nga ca defes kon kooku dafa amoon vision kooku dafa nekkoon un stratège kooku dafa nekkoon borom yi xam-xam borom yi pexe Euh, li nga xam ni mënuñ koo wax nag mooy du nitu fii ndax pour ma wax la loolu koo xam ni ba nga juddoo lañ la booleet ka nga xam ni moom nga moom moo moom nga war a topp moom nga war a jox say pexe yëpp nga koy topp ba ngay dugg ci ba nga koy gis vingt sept ans nga vingt sept ans ba muy dugg keur mam borom Touba 27 ans la bam Cheikh am kon 27 ans ngay wër nit te musu ko tek beut nga ni waa ki fama ko xamé du fi yépp te nga wër ñëpp ko ci ne jàkk da nga xam du mom ba yegg si ci serigne bi lam ma ko ñëk wax dama bëgg yegg ci yalla ndax serigne bi ne suñu borom nenañu pour ya, yegg si ci man yow ci yow mii laa jaar ma bëgg yegg ci yàlla de la ko wax kon nga xam ne kooku sëriñ bala mu yegg si sëriñ bi moom am na pacte bu mat yàlla ba pare kon nag moo tax ma ni Thiès bi ngay waxat bi mu fi ñëwee implanté woon stratégie d' implantation boo yooyu yëpp ci vision maam Cheikh Ibrahima Fall ndax boo gisee jotaay murit day jotaay bu ubbeeku kenn du imposer kenn dara lépp ci xam-xam la lépp ci générosité la maanaam tey jii dabe ndab boobu ngay wax dégg lu mu doon stratégie la ndax nee na góor boo bëggee eh, da eh, jot góor ca yàlla jox ko mu lekk ba pare biiram pees mu doog a mën a xaret gaay kon stratégie yooyu noonu da teg ci xam-xam benn ndax ñoom ñooñu ay boroom xam-xam lañu kon ci xam-xam maam Cheikh wane na leen nag man tam naa bari naa xam-xam lool générosité maam Cheikh jëf la ñaar ñoom ku ci xew la ñëw na sab xew ku ci am naqar faj na ko ku ci am soxla faj na ko wan leen nag ne kii fii ma topp booboo ngeen wër ba ñu topp loolu ba topp ndax loolu rek la mën a yóbbu ci yàlla ndax li ñu war a jàpp foofu mooy lan mooy sëriñ bi dafa bind ci ci téere yàlla may na ma ma nekk refuge yàlla may na ma man sëriñ Cheikh Ahmad Bamba ma nekk refuge refuge danga mooy fu ñu mën a làqatoo kon loolu maam Cheikh ñëkk ji ci sëriñ bi kon kooko bari xam-xam ne waa kooku sëriñ bi bu ñëwee jàpp sa loxo kaay ba yóbbu la fa ma jëm doo ko topp ah <laughs> waaw kon nag question boobu nga ni wax ci parce que ñoo ñëpp tey jii maanaam euh, ñi nga xam ne ñoo toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall ca Saint-Louis ba Diourbel ñoom ñëpp ay kàngam lañ ñoom ñëpp nag ay kàngam waaye dem nañ ba xam ni ñoom lañuy ñuy wër kii xam na fa mu nekk mooy maam Borom Tuuba ndoolu kese leen tax ñoom ñëpp ñu wëlbatiku ñëw dem ci maam kon stratégie boobu effectivement dafa bari ay façon dafa bari ay facettes ndax Thiès aussi maam Cheikh dafa def entrepreneuriat maam Cheikh ubbi na fa ay boutique maam Cheikh développé na fa ay tool maam Cheikh def na fa li nga xam ni mooy euh, maraîchage horticulture maam Cheikh def na fa lu nekk kon Mam Cheikh dafa deb dafa bokk ci développement économique de la région de Thiès Da yemul ci Thiès de Saint-Louis pareil Thiès pareil Durbel pareil Dakar Ndiaye pareil c'est un entrepreneur né te lolu yep nak manam euh, ci préoccupation Cheikh Abdou Bamba le de rendre le mouride utile par l'action l'éducation des jeunes, l'adoration de Dieu, la relation maître-disciple. Comment amener le temporel théorie le spirituel et le temporel Qui les de théoriser Qui les peut de euh, Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et le recours, que quiconque veut le bonheur d'ici là et dans l'au-delà doit se refuser auprès de moi. Cheikh Abdou Bamba Khadim Rasoul Djerejef. Euh, ndeysaan mu mel nii euh, ba tey euh, maanaam li nga leeral ci maam Cheikh Ibrahim Fall Babul Mouridine nga xam Manam, maanaam sëriñ bi moom mooy sëriñ bi waaye nag maanaam ker ci biir lëndëm moom ku ko feeñal rek amatoo morom euh, waaye maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine yàlla na ko yàlla fayal man ko ngi koy waxtaanee sama xol day sedd guy day saan euh, waaye mu mel ni euh, ba tey rek maanaam nga nga nga leeralaat maanaam fii nga xam ne mooy l'ambulance nga xam ne maanaam hôpital principal hôpital la Dantec ambulance ya fa nekkoon moo tax sax ñu yàq tur bi ambulance lañ doon wax ambulance ba tey mu gi ñu koy wooyee l'ambulance nga xam ne mooy palais de la république ak primature ak ni ñu ko leeralee waaye nag euh, sëñ Abdoulaye euh, Yakhine Diop ñuy siyaare njabootam gi bu baax a baax euh, mu mel ni sëñ moor baax ñoo ngi koy siyaar dem nañ ba foofu def fa émission mu mel ni nag boo duggee ci YouTube bi am na benn photo bu ñuy wane naan mooy sëñ Abdoulaye Yakhine Diop waaye day mel ni kooku waa njabootam leeral nañ ne maanaam du moom xëy na photo internet rek la waaye sëñ Abdoulaye Yakhine bàyyiwu fi li nga xamante ni tey mooy photo ñuy siyaar bu baax baax eh, soxna Eh, saybata ay dara di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wér waaye nag eh, maanaam soxna màgget mi nga xam ne maam seen bu Njaay lañ ko tuddee ndeysaan di ko eh, di ñaan suñu borom yokk ay leeram waaye nag sëñ Omar Fay mi nga xamante ni dafa bokkoon ci waa kër sëñ Abdoulaye Yaqin di maami Alaaji Mbàkki yu Fay mi nga xamante ni tey jumtukaay Sëriñ Tuubaa moo ko indi tëdd fële ca Bàqee Cees di ñaan moom it suñu borom yokk ay leeram sëñ Korseen mu mel ni ba tey rek ndeysaan maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine maanaam bokk tey ci diplôme pharmacien jamono jooju école française euh, ni nga xamante ni tey euh, maanaam euh, dañ koo dese woon a nangul maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridi daal di jël ay doomam dugal leen école française tey loolu maanaam boo ci doon indi ay leeral maanaam dëggi-dëggi maanaam liggéeyal Serigne Touba moom dafa jarloon maam Cheikh Fall lépp kon loolu tey yan leeral nga ciy indi. stratégie weesuwul ñu yóbbu sëriñ bi ca Gabon. yóbbu ko ca Mauritanie indi ko Jurbel te loolu yëpp ñi ko defoon colon yi la te colon yi dafa amoon fu ñu sukkandiku rek pour dérouler seen stratégie boobu yëpp te colon yi dañoo xeeboon ñi nga xam ni moo ñu demul école comme que waxoon naa ne maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu ñëwee ca keru mam borom tuba da ko ne joxna la sama bop aduna allahira loo ma tere ma ba digal ma def joxna la sama alal joxna la sama njabot kon bayiwul dara dan wax ni bo am alal te yalla da nga jox sa alal yalla bo bëggee am njabot te yalla da nga jox sa yalla lolou ma am Cheikh def tey jii mu jëlee ay doomam yóbbu leen école bañu ne ko waa lii nga xam ne yow mi nga xam da bañoon école tubaab yi ngay jël di di sotti joom dina ko yóbbu mu leen pour que sama doom mën a jëriñ doom yi Sëriñ Tuubaa yi ëllëg ndax ñoom moom amoon na mission ay doomam yi ñëw itam dañu am mission ndax ñoom li leen fi teg mooy taxaw waa kër Maam Borom Tuubaa kese. àdduna day dox noonu tubaab bi duggee at ay matukaay fokk ñu tam ñu am matukaay yooyu pour mën na pour mën na diir mbagg sama exemple mi ngi fi poloña ma Sénégal mais boo génnee at la nga am gis la nga xam ni xamoo ko lu bees la ci yow plus la kon adduna bi du lo dafa yam région c'est un part de mondialisation tay États-Unis mais mourida nga fa Italie pareil fo dem ci monde bi da fa fekk les gens li touba bi xam ci mam borom Touba ñun xamuñu ko kon mam mam Cheikh ba muy ay école ba loolu la ci la preuve ñi nga xam ni mooy doomam yi nga xam ni dañoo juddoo ndar ils avaient la nationalité française première guerre mondiale ña dem ca bari tey ji waa ndar lañu sëñ Fallou Fall at euh, sëñ Abdal Fall ndar ñoom ñëpp ca waa ndar lañu woon ñoom ñëpp mais loolu moo lay wan ni rek Euh, tey jii boo xoolee ci même contribution yi nga xam ne Maam Cheikh contribué na ko ci trésor français loolu yëpp stratégie la parce que sëriñ bi amuloon jotu loolu sëriñ bi te sëriñ bi dina fi bàyyi ay doom yoo xam ne yoo soxla assistance ndax ba la ma lay fàttali ba maam borom Touba fekkee maam Cheikh te jumaay Mérina ne ko dama ñew dila taggu ci na ma ngi delu tuba mu ne ko fi ba déedéet ba Muhammad sallallahu alayhi Wasallam. sallam dañ dem Abubakar sadiq bu mu defar ginnaawam la yow mi dama la fi ban ak nga defar sama ginaaw boba xam nañu pexé tuba bi tuba bi demone le bu muridisme bi développement Mouloussine da ko tiitaloon dafa ne force bii buñ ko maîtriser wul ñun ñu dootuñ fi jar dara kon nag comme que sëriñ baa ngi fi dañuy xaar ba mu génn àdduna ñu tas ko moo tax loolu nga wax di bi ñuy xam ne sëriñ bi dem na ba sëñ moo Modou Moustapha toog ba maam Cheikh ñëw jël maanaam li nga xam ne mooy mooy pouvoir bi teg ko ci loxoom loolu moo doon sécuriser la legs de Cheikh Ahmad Bamba loolu la woon du leneen liggéey boobu looloo ko fi tee woon kon tey liggéey yooyu nga xam ni ñi ngi ko doon def ba ci jumaayu Tuubaa yi ba ci matukaay yi nga xam ne moo dem moo dem yekk ba tubaa ndax la nga fàtte aussi mooy ca gaaru Jurbel ba ñuy bëgg a tabax jumaayu Tuubaa ya réunion dafa am ak tubaab bi tubaab bi imposer leen ay conditions yu metti ne leen da di indi chemin de fer te la ngeen di fay ouvrier tubaab ngeen di fay ouvrier sénégalais boobu sëñ Modou Moussa mu jóg ne ko loo ñu ñu def ko nangu nañ de boobala boobu la maam soo jóg ay Fall ay sëñ modo waaye jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall noonu rek la noonu rek la waaw noonu rek la. moo tax ma ni looloo tey jii bu leen yóbbul woon duñ mën a wax tubaab bi bu leen yóbbul woon du ñu amee pexe def lii kon xam-xam bi maam borom Tuubaa di digle dafa baax man nga am as tuut de waaye ne am na lu bari lu lay xaar mooy wutub xam-xam gëstu ji kon loolu yëpp ci stratégie maam Cheikh Ibrahima Fall yu mu tegoon pour accompagner sëriñ bi li nga xam ne moo doon ay préoccupation waaw jërëjëf Cheikh de euh, doom ku jàng euh, loo gis xam ko waaye ku liggéeyal sëñ Bamba loo bëgg am ko euh, ndeysaan mu mel ni ba tey rek ndeysaan maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine moom mooy yoonu murit ndax lii nga fi leeral nii buñ ko génnee ci yoonu murid dara du ci des waaye ba tey ndeysaan mu mel ni doomam yooyu demoon ci école francaise waaye ba tey maanaam li nga xam ne moom la ñu bàyyee manam ñun na lañuy def bu sauvegarder ko ci jamono joo xam ne xale yi ñu ngi jël gaal gi ci jamono joo xam ne eh, maanaam ñàkk teggin gi manam réseaux sociaux yi manam ñii di pari foot ñii di ñii di ñii di ah, tey eh, manam eh, diplomatie bi fi maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ak philosophie bi manam nan la ñuy def ba mën koo garder héritage boobu. pense que livre bi ma bind mu deuxième ouvrage sur les enseignements de Cheikh

ndax loolu mooy firi naa ko ci livre bi la course à la richesse te yàlla wax na ko sëriñ bi wax na ko ci masalikal jinaan lépp lu dul sa wërsëg doo ci jot lépp lu dul sa wërsëg doo ci jot c'est-à-dire que moo tax may wax ni enseignement wu euh, maam Cheikh damay rappeler rek c'est le temporel ndax enseignement wu maam Cheikh dafa jóge ci préoccupation Cheikh Amadou Bamba ci adoration de Dieu ci éducation des jeunes ci relation maître-disciple ci rendre le croyant utile par l'action loolu mooy lan mooy lépp sëriñ bi da koo ci ndax moom ci wàllu boppam léppam yàlla la comme a doomu aadama dafa la teg lépp ci yàlla ndax daan nañu sëñ bi maam maam Cheikh daan wax ni ku gëm yàlla dangay nangu ay dogalam bàyyi ay tereem kooku mooy ki gëm yàlla mais bu dee ñun déjà du ñu respecté dara kooku nag lañ mën a nekk ci yoon bu baax sëñ bi mu teg ci àdduna ñetti fan la tey démb tey at suba nee na boo rëccoo sa démb fexe ba rafete ko tey pour sa ëllëg mën a jag leer na nañ sëriñ bi kon dafa am ay valeurs yoo xam ne c'est des valeurs d'intégrité c'est des valeurs de loyauté C'est des valeurs de persévérance, de patience. ci tapalé. ñetti fan la bis ba ngay bis bu ko cest que valeur yoyu ngeen di wax sëriñ bi c'est des valeurs yu nga c'est des valeurs ancestrales ñun nous judd ci valeur yoyu perversion bi kay mi ngi ci réseaux sociaux yi ngay wax ndax la relation maître disciple mooy yow sëriñ bi yow bi nga xam ne yow boo demul jébbul ci ab sëriñ yow maanaam tey jii seytaane mën laa mën laa fab ndax sëriñ bi xam na loo xamul yow sëñ bi mën na loo mënul kon sëñ bi dangay teg ci ay ay ay yoon noonu maam Cheikh def ba gis sëriñ tubaa ba ne ko damaa bëgg a yegg ca yàlla noonu la ñu tege ay së sëriñ bi seexal ay ay ay seexam pour ñu yóbbu leen ca yàlla. loolu moo tax mu ne relation maître disciple kooku mooy la discipline maanaam nit dafay disipline boo amul discipline amul dara kon nag disipline boobu sëriñ bi dañ koo teg ci yoonu maanaam tey ji moom fa mu ko njëkk a accès mooy ca yàlla ndax boo nee jullil nee na julli yër sa bàmmeel la boo sëlmalee wutal loo fa def loolu moo tax mu ne la

li nga xam ne moom la fi yàlla bàyyi ndax dañu ne tey jii àdduna bii maanaam dara neexu fi dara neexu fi ab passage rek la mais fee ñu jëm moo jara sóor moo tax mu ne leen xale yii bu leen xëyee jël leen seen i bànneex def ko seen jël leen seen naq def ko seen i bànneex parce que fii dara neexu fi dara neexu fi kon loolu moo lay wane nii rek enseignement yi foofu lañ ko accès enseignement bi moy ci liguey ba le travail acharné ça n'attend aucune rétribution pour la seule face de Dieu la seule face de Dieu motax lepp lu serigne bi di wax tay ji da ko accès ci ay ay ay charte moy gem yàlla jaamu yalla patience travail patriotisme diplomatie les nak lepp nga ci enseignement Cheikh jërëjëf euh, sëñ Cor Sène euh, ndeysaan euh, mu am solo lool lool lool ndeysaan nga xam ne wax dëgg yàlla li nga feeñal lépp ci waxtaan wi ay enseignement la yoo xamante ni tey jàpp naa ne bu ko àdduna bàyyee xel loole maanaam ñëpp lay jëriñ waaye mu mel ni tamit ba tey comme ni ñu amee rek ñi nga xamante ni tey ay Baay Faal lañ nekk ci yendoo liggéey fanaana root nga xam ne dañuy laxasaayu takk ay course nekk ci daara yeeg yu demee noonu euh, format boobu tamit benn format la ci émission bi waaye noonu lañ amee tamit diggante ndar ba ndakaaru mbër mu fi rëy bañ naan la kaar Cheikh Ibra ngay laaj pexe muy comme murit yu mel ni yéen nekk ci bureau yi ah mu mel ni incha allah euh, dinañ dem régie euh, maanaam am waxi maam Seera Fall gu nu seetaan rek daal di dellusiwaat. saa maam nee woon na ni a ah, doom bés a ngi ñëw ndaw dina ndaw ñi dañuy bëri bëgg-bëgg te du nangoo liggéey mu man doom dama néew bëgg-bëgg te nangoo liggéey maam Seera Faal ne woon na ne a ah, doom ku jàng loo xam ko ku liggéeyal sëñ Bàmba bëgg am ko. maam Seera Faal wax a ah, doom ngeen ma xamee woon ni ma waa Barsax xamee woon lu ngeen liggéey yot ma ko maam Seera daana wax naan a doom dabe ndab sunu maam Cheikh Ibrahima Fall leen a ku am jot loo yootu doo ko jot te lu loo yootu jot la mu wax ni aadoom ku nekk ci li ko war mucc si li ko wër nee na it aadoom kër suñ bàmba gii dee si rawee si jëf waaye dee si rawee si wax nee na aadoom ki jëf ba raw la mënoo wax ba dab ko maam si Ibrahima Fall ñoo ngi lay dagaan dubb la woon ginnaaw lépp luy sawaan macha allah mu mel ni euh, nga xam ne mu am solo lool euh, nga xam ne dafa mel ni ay baat yoo xam ne euh, maanaam mooy la diplomatie du langage nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine ba ci sëñ Touba sax sëñ Touba daan def ay tomb ci njaarim mag ñi nga xamante ni tey ay fóore la ñu woon bu ñëwee da leen àggale ñi nga xam ne nag dañoo ñëw nekk ci daaray tarbiya yi da def ay tomb loolu tamit bokk ci diplomatie waaye maam Cheikh Ibrahima Fall ñu miin ci moom. ay xeetu wax yu mel nii yoo xamante ni tey day doon ñaari baat wala ñetti baat jàpp ñeent waaye nag mën a defar sa àdduna euh, mu mel ni loolu it euh, ci sa livre bi am nga yoo ci leeral waaye ñu décortiquer bii rek nga xam ne dégg nañ ko euh, jàpp naa bu ma juumul dafa ne a doom maanaam ku nekk ci li ko war mucc ci li ko wër ndeysaan ku nekk ci li ko war mucc ci li ko wër tey yow mi nga xam ne bureaucrate nga tey eh, maanaam ban gis-gis nga am ci loolu nga xam ne tey en dañ naan une société sax doo fa am ay xarit waaye ay collaborateur nga am tey loolu ana lan nga ci gis. loolu ñun la ñuy wax responsabilité responsable dafay mat kilifa day mat ndax ku nekk ca la la war mucc la la wër anticipation la rek. ndax yow tey jii buñ la dénkee ay responsabilité am fay noo def mu am conséquence par contre nag sa responsabilité bu matee conséquence du fa am kon anticipation bi ngay def ndax loolu yëpp euh, boo gisee euh, mu bari euh, ci wax jooju wax jooju dañ koy centraliser fenn rek mooy jëm ca yàlla nee aduna bi jar-jar ke la fi nga xamni fa lañ jëm moy muccantal ba te muccantal ba lo lo lo fa jëful ko do ko kii de loolu la lay wax nak ku nekk ci la la war mucc li la wër manam feñu jëm jëf la de waye nekk ci lu neex rek ba paré bëgg bo démé fee fayeku ta nekk kon del nek ci la war señ bi la la war mooy lan jaamu yàlla jaamu yàlla kese la de c'est-à-dire yooyu boo moytul dafa ànd dafa dafa dafa dafa toppante nag ndax tey jii moo tax mu ne la julli yër sa bàmmel la boo sëlmalee wutal loo ci def. Mhm. waaw mooy mooy pares rek c'est la paresse. tey jii ka nga xam ni mooy homme d'action waa dégg dafa moo tax man nañ ci contexte la ñuy wax na ci contexte ndax contexte bi mooy yow tey jii li tubaab bi di wax résultat yi bout l'effort yow defoo effort nga bëgg am résultat ah mooy ki nga xam ne tey jii mi ngi jëf di def ay effort pour am dara ak ka nga xam ne daa toog kër di naan attaaya bëgg am résultat loolu mënta nekk donc tey jii loolu paresse lay tudd c'est la paresse pare sa ne peut pas avoir produit de résultat mais ka nga xam ne nag mu nga ca waaroo matin di soir teg ca la mu war a nekk noo def mu gis résultat kon booba aussi ci contexte ñun suñu contexte mën nañ ko jële foofu mais moom itam mi ngi koy ràbb mi ngi koy ràmmane ci contexte su fa njëm fañ jëm mooy metti na lool te ñàkk jariñu la ñàkk jariñu hmm. ah, waaw <laughs> xam nga booba nag booba nag damay fàttalil rek ja euh, xam ni kàngam yi nga xam ne dañoo toogoon guddi di jeneer ñu xëy suba teel ñëw ci maam borom Touba ne ko de ñun de dañoo seen sa waa ji la ko may fële bëgg nañ ko ñu bëgg nañ ñun tam nga may ko ci kooku da leen xasaraw ba pare xanaa ma may leen nga gis poussière am pëndëm ngeen gis pëndëm kon loolu mooy loolu nag mooy kii la mu jëf waaye wax wax taxu wax taxu la taxu la yegg foofu de parce que dafa sax ci jëf dafa sax ci jëf li mu am lépp ci membre am jëf la kon tey ji amul kenn koo xam ne loolu ko maam borom Tuubaa may mën na ko may keneen kon nag boobu moo gën a mën a firnde lii nga ma wax tey ji sëñ Mamadou Corsene Sarr eh, ndeysaan mu doon loo xamante ne nii tey lu am solo la ci ni ñu décortiquer maanaam eh, ni ñu jàpp ak fi ñu toll ci waxi sunu maam Cheikh Ibrahima Fall eh, Babul Mouridine nga xam ne incha allah am nañ ci yaatu yoo xam ne ah, dinañ ko ci yaatal ak mbokki taalibe yi eh, mu mel ni nag eh, wax dëgg yàlla ñëwoon nañ tey fii port maanaam port num la Dakar waaye nag plus particulièrement ci Cap Sénégal Euh, ndeysaan fekk fi ki nga xam moy secrétaire général bi waye nak di talibé mam Cheikh ibrahim Fall Babil Mouridine waye nak bokk sax ci meññam téfam bokk ci famiyam euh, mu melni nak muy auteuru ñaari livre euh, bi ci jitu di la vie et enseignement de Cheikh ibrahim Fall Babil Mouridine benen bi nak nek le retour aux valeurs ancestrales la voix du salut ndeysaan nga xam bu ci nek rek manam njariñ yi ci nek ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine euh, maanaam ku ko natt euh, maanaam euh, daanaka du am yam waay ah, mu mel ni boo doon tàggoo maanaam yan kàddu lay doon ak tamit boo doon maanaam boo doon joxe benn message maanaam boo xamante ni tey mbokki taalibe yi nga xam ne jàpp nañ ne ku sol kurus maanaam solo njaxas doo Baay Faal maanaam loolu tey boo doon joxe benn message muy ànd ak tàggatoo lan lay doon. mooy maam Cheikh Ibrahima Fall daawul sol njaxas te déet daawul sol njaxas de bi ko tubaab bi invité ca gouverneur bi sax ba mu ko invité ca pale ba tegal ko assiette ndax li ñuy wax les instruments de la cuisine française maam Cheikh na mu ko jëfandikoo dafa yéem tubaab bi ba mu def ni sax moroom tubaabam la toogal fa la jaar naw maam Cheikh Ibrahima Fall loolu la ñu doxal tey ce n'est pas l'habit qui fait le moine la foi est dans le cœur ndax bari na ay Baye Fall gis fii nakaru Njaay ñu def naka su dul noonu ñooñu Baye Fall lañu déedéet man de mas na damay nett benn anecdote rek suñu bay bu baax la won nekkon ci jëruñu maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh sëñ Fall Khady Gueye la tuddoon mu ñëwoon Ndakaaru don doon tu ba sandaga gis ay talibé bay Fall yor seeni cour ñew ba ca ñom Euh, ku seen sëriñ ñu ne ko seen Cheikh Faaxa Digé mu ne ah ndax kooku xam ngeen ko waaw xam nañ ko waay fa ah mas ngeen koo gis maa ngi nii ñu daanu loolu rek moo lay wan ne ñun tey jii li nga xam ni euh, ci la ñu nekk mooy la la pratique Et livre bi xamni coïncider at li nga régime actuel bi indi moy une nation doit être organisée une nation doit être doit avoir des valeurs une nation doit être doit être aujourd'hui civilisée et disciplinée et éduquée tara tarbiya ñaata milliardaire la defal fi senegal waaw tey jii am na wax ni bis bu mouride décidé won indi fi gal gu xamni senegal kay mom bis bu serigne bi ndigal suba mu ñew dañoo bëgg wax ni rek dans les pays les plus développés le développement c'est part se fait à partir de la valeur propre kon yow bul bàyyi say valeur di dem jëli valeur jàmbur te ñun sëriñ bi daf ñoo joxi valeur yoo xam ne yu wóor yu wóor yu wóor péng la ba tey ji foo dem dans lu monde nga ni Cheikh Ahmad Bamba ñëpp xam nañ nga ni Cheikh Ibrahima Fall ñëpp xam nañ kon waru ñoo bàyyi suñuy valeur di wuti yeneen valeur te tey jii li fi nekk mooy yàlla yàlla fi moo fi nekk yàlla kese fi nekk Nous sommes là dans ce monde-là, par le travail, par la croyance en Dieu, pour défendre ce que Qu'est-ce quest c'est que c'est Nous livre un livre ngi ci lépp li nga xamni mom la ko don ma koy encore une fois moi les fondamentaux des préoccupations de Cheikh Amadou Bamba ont été repris par Cheikh Ibrahima Fall ci ay mis ci fànn bu adoration de Dieu moi, éducation des jeunes moi, patience moi, bonne conduite moi, comment bénéficier des bienfaits de Cheikhul Khadim moi, le travail l'intégrité la loyauté donc loolu est moi, tax nit nek nit te loolu itam day résumé rek Masalikul Jinaan ndax Masalikul Jinaan diis na diisaay boo xam ne boo ko liiree benn yoon dootoo ne la guddi de maam Cheikh nag ci aspect temporel am mu allégé ko firi ko ba mu woyof ci di ñi ba nit ñi mën koo jëfandikoo loolu moo tax aadoom boobu ñu jël ko defaraat ko def ko ci tubaab def ko ci wolof pour maanaam xale yi mën koo jëfandikoo kon li nga xam ni moom la ñuy tàggoo rek mooy xam ni euh, maam Cheikh bu ñuy wax maam Cheikh di wax maam borom Touba ñu ngi wax tarixa yëpp ndax tarixa yi fi nekk yëpp ci yoonu yàlla lañ dekk ñoom ñëpp ku nekk da si am say façon mais beddewuñu kenn ndax ñëpp. ci yoonu yàlla mi nga xam ne moom lañu ñu moom la ñu Seydina Muhammad teg ca foofa la ñu tego moo tax bañ nañ ko jëf te bàyyi wax ji jëf rek bàyyi wax ji ndax jëf moom wax moom du mas a remplacer ab jëf <laughs> jërëjëf Cissé jërëjëf. Ah, ñu kontaanaat bu baax nag eh, amaat ak yow jotaay ndax mel na ne bu mu juumul bi mooy suñu ñetteelu jotaay. ñuy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine euh, di ñaan rek suñu borom barkel la waaye barkeel ko lool nag euh, barki sa maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine waaye ci li nga daanalee euh, loolu li muy feeñal rek mooy tey maanaam développement c'est quelque chose de propre maanaam ci soi même lay tàmbalee loole nag li koy feeñal tey culture bi nga xam ne moom la ñu suñu maam Cheikh indil tey boo seetee maanaam yenn intellectuels yi dañoo aspirer nuroog tubaab waaye tamit yenn jullit yi dañoo aspirer nuru arab ab Baay Faal rek ngay gis sa xel dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Mouridine mu doon jullitu Sénégal loolu moom yàlla def na ko ci boo xoolee tey njal njalabaan yi ñuy am c'est propre maanaam boo xoolee tey njaxas yi ñuy sol fii lañ koy defaree daray murit wala daray Baay Faal génnul Sénégal te jàpp naa ne loolu mooy culture bi nga xamante ni moo ëpp doole mu wax ne nag a ah, doom man awma ay sëriñ ay góor yàlla la am te góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor bu góor àgg ci yàlla ah, bu ko defee képp koo xam ne rek yàlla dogal na nga doon teewlu émission bi di ko àndandoog ñun ah, fii ci Touba TV ñoo ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di leen joxaat dig dig daje ci beneen numéro incha allah wal tuf bi naa waxawi naa wa kulla naa waxab leen leen xus naa xitaabar ba naa wa sellee na la nabi wa sallim yi wax di baa jàddi kulli muslimin sëñ Kor Sène jërëjëf